dal leen ak jàmm suul ker du ko tere feeñ maa ko def mën na nekk waaye maa ko def te kenn du ko fi waxee mënul nekk maître Moussa Bocar Thiam mi tëj wal fajiri yéenekaay yu bëri xëy na di ko tubéy ba tuddee ko avocat bi sol robb avocat njuumali Moussa Bocar Thiam l'avocat du monstre noonu la ko yéenekaay tuddee mu di Les Échos Walf Quotidien Sud Quotidien Le Témoin yéenekaay Enquête Le Quotidien Vox Populi Critique Source A Libération Tribune Bës Bi Le Jour Direct News L'Info yéenekaay 24 heures ñoom ñëpp xëy yekk ko lu mel ni xamee ne ko tëj nga wal fajiri waaye dina wex xatt ci yow ki muy défendre di ko layal di Macky Sall démb ci conseil des ministres bi mu doon amal te la doon raggee deram ne ñu foog ni bëggu nguur moo tax maaj élection bi juum nañ mu ni loolu bu ko taxoon a jóg am na ko bu yàgg te am na yeneen yoon yu mu ko mën a jaaree ndax ba muy taxaw ni deful troisième mandat kenn forcé wu ko ko devoir moral moo tax mu jël ay responsabilité def ko élection bi tam mu ni loolu moo tax mu dàq ko ca ndaje ma ca la jaaree féddali kóllëreem ak njàppandalam ci premier ministre Amadou Ba léegi ko ne ko démb Amadou Ba ak Macky Sall mu mel ni mburoog soow la ñu fa nemmeeku ñu ànd nag di woote ni la am solo mooy ñu waajal élection bi ak dialogue bi Le solo yéen a kaay féelu ko ni ko njiitum réew mi dëggal na position ni du bokk ci élection yi ba noppi feddali koleereem ak premier ministre Amadou Ba mu ni lu ko ñor mooy def li mu man lépp ba réew mu tegu ci jàmm ak salaam élection bi itam am ci ak daal laatir bi lu ko jaaxal mooy diggante Macky Sall ak Amadou Ba mii nga xam ni seen mbir wowul tooyul tey ñu xiiroo suba ñu juboo tax mu ni naxante ci boppam am na ci seen diggante libération ni ko Macky Sall moom delluwul gannaaw ma fa mu nekkoon ba tey ci aj élection bi ba la février 2024 FC 25 le quotidien mo ngi ñuy ñi moy mouvement bi yes bu opposition bi taxawal ngir jamarlo ak Macky Sall ci bir l'info yéenekaay Aliou Mamadou Dia di candidat pur bokku ci ñu sos mouvement bi ni fa Macky Sall au lieu mu gardien de la constitution waaye aduna wërngel képp teg neen seen beut ni légui moy gardien de la confusion Cheikh Tidiane Dièye naan fa Macky Sall li nga def moy haute trahison violer ses serments te war nga jéem a honor sàmm sa honneur bala muy gëna ñaaw ñaaw na ba nopi ndax Macky Sall nguuram du samay ndax waxi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa Léona Niassène la ubbil Walf Quotidien ci biir yéenekaay bi Serigne bi ni fa Macky Sall doyal nañ ci moom jeexal na na dem balaa yàq awaniiram te tëj gi mu tëj Walfadjri Serigne bi nee na ko dellu ci ginnaaw nu mu gën a gaawee lu ko mooy du la jik Walf Quotidien ni ko du jik li def te mu jàppee ko putsch constitutionnel askan wi duñ ko ci bàyyi ndax aljuma bi fas yéene nanoo wàcc ci mbedd Ndakaar yi ci jamono boo xam Union européenne moo ngi sàkku ci moom ngir mu respecté calendrier électoral bi le Dakar waa Quotidien moo ngi ñuy xibaar accident bu yéemete doy bi am ci yoonu Touba yi ci Kazu Rajab gi te dëkk bii di Ndola la Dakar waa nit ñu fukki nit ak ñett ñoo ci jëlee gaañu gaañu juróomi nit ñàkk ci seen bakkan kaddu askan wi wal Walfadjri la voix des sans voix kenn du ko fi suulee mënul nekk na ñëpp ñëw ci sitiñ bi suba aljuma 15h samedi 15 ak dimanche 15h yépp te buntu Walfadjri lay amee Walf day dund kenn du ko fi reyee